suñu am la woon tey yàlla génn fii ñu di di ko wax ni yàlla na suuf si kawam ñan ngi fekk ci bàmmeelam et di wan ni tamit ni lii rek mooy Sénégal nekk fi mais ñoo fi di li ko liggéeyal fa mooy Sénégal merci à vous aussi les en français je dirais je suis très très aujourd'hui euh, Passez ici, pape. Pape, pape. Oh, oh, oh. Oh. Pape. C'est ici, pape. Pape, pape. File. Pape, voilà, pape, pape, pape, pape, pape. Pardon, file, file, file. Pape, file. File, file, file, pape. Content, ça fait plaisir pour notre football local, c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'on avait besoin et donc on le ramène. Eh, bravo, bravo, a à tous les coachs. Euh, moi, personnellement, je veux dédier à mon Joseph Coto, que j'ai travaillé avec lui, depuis de ce là où il est. Et ça fait vraiment plaisir aussi d'apprendre ça au pays, parce que je pense que notre pays mérite, mérite notre championnat local, mérite ça. Et bravo à tous les coachs locaux. ils euh, contribuent aussi, à, sont, contribués à ce travail. Et merci, merci encore. Qu'est-ce d'être le premier à apporter ce trophée, coach Non, ce pas un truc personnel que d'être le premier. C'est juste qu'aujourd'hui, le football local rentre dans l'histoire de l'histoire africaine. Ça, c'est, ça, il n'y a, a, pas mieux. a a pour notre, pays, il n'y a pas mieux pour notre football Et merci à vous. Merci beaucoup. nag ngeen dundee tey jii trophée bi. waaw mbégte rek kontaan nag bilaay bu woon sénégalais kontaan rek. Mhm. local bi bilaay moo doon jaayante ko. mu fexe bu ñëwee si final bi doon na bu métti ngeen jëm ba bi nga nekk capitaine nga jël engagement a tiro naka nga dundee loolu. un peu loolu tiro bi moom bu métti match bu métti sax. Mhm. match bu métti la woon xam rek mais dañ gëmoon nii dañ ciy génn. métti lu métti métti métti ak ñoom lu ñu def supporter supporter ñu gëmoon nañ génn mais comme man maay leader tamit pour may penalty bi maay def assuré pour may booy fit aman joo dugal booy mun mhm. lan moo ne woon waxtaan bi avant finale bi ba jour après finale bi <laughs> non waxtaan nañu ni carrément ne coupe bi day dem sama man maay nag dañ ko gëm billahi wallahi mën nañu wax équipe A bi inspiré na leen déggoo ma moo tax boo déggoo sama sama sama conférence bi naaw uh-huh. waaw li nga def le six mi nga def le quatre yóbbu la merci beaucoup merci félicitations Merci. Et c'est la délégation. On a Moussa Ndiaye, on aperçoit la délégation sénégalaise qui est là. Euh, les joueurs qui sont là. Vous les voyez. Moutar, Moutar, Moutar, Moutar, Moutar, Moutar, Moutar, Moutar, Moutar, Moutar, Moutar, Moutar, seen sàkk bi. waaw yenn saa yi dañu naan alhamdulilah ñu demee fële si Algérie ñu nekkoon tournoi bi métti woon métti woon na trop alhamdulilah on a géré géré nañ ko carrément nii ba indi coupe bi Sénégal ñu doon tase final dem équipe boo xam ne moo ko mu nekkoon tamit foofu final bi métti sax xamoon nañ day métti ñun mais gëmoon nañ ne incha allah dañ ciy génn te noonu la demee ñu doon loo xamante ne dañ ko préparé bu baax a baax a baax coupe bii nii waaw kontaan nañ si trop ndax ñun sax xalaat xalaatu woon sax ñu ngi yéen toog di ñu xaar ñu ngi Matar Matar ñu may fene Matar retourné tuuti présenté yàlla dafa am lu ñu bokk suñu koy sant yàlla lan moo a nekk say ambition ak say objectif euh, ginnaaw bi nga jëlee charte. waaw continuer liggéey rek.

tous les Sénégalais étaient devant nous. Ils nous ont poussés, galvanisés. Donc, on n'a pas les mots, On a juste que vous remercier. on a fait le boulot aussi de ramener le trophée chez nous. da vraiment kontaan nañu kontaan trop ci trophée bii nii xam nga te tamit gis nañu message yi sénégalais yi jàppale trop trop trop donc vraiment ñu ngi leen di a baax. est-ce au départ. Comment est que vous ah, pas, Parce qu'on était en compétition, forcément on va penser à ramener ce trophée, parce qu'on était là-bas pour ramener ce trophée. parce qu'on voulait imiter notre grand frère. Et puis nous a aidés, on l'a fait. Et à un moment, qu'est-ce qui a fait la différence Bon, la différence, c'est juste l'esprit d'équipe. Sincèrement, on avait l'esprit d'équipe, il y avait de l'ambiance et tout. Et puis tamit, euh, avait euh, le soutien du peuple sénégalais. Sincèrement, on vous remercie. Et l'avenir euh, devant nous, sincèrement. L'avenir devant nous. On va essayer de tout faire pour faire le maximum possible. Et votre nom c'est Melo mën nañu wax 4 février 6 euh, février ay dates la yoo xam ne dafa bokk ci taarixu football euh, Sénégal. de suba la suba lañ koy fete gis naa waa Jululu léegi dama leen interroger ñu def benn délégation bu am solo ñu ñëw lan nga leen di wax parce que ñu ngi ci biti Lamine Lamine bu ma loolu laajte kan mooy sa idole ci football lan la lan avenir Lamine lan la ci football bon sama sa idol ci kan la ci football bi. mais justement Lamine wax ni ñu ngi ñu ngi lay topp ci chan bi recruteur yu bëri instant bi Lamine Camara rek la ñuy wax ndax yaa ngi wax yaa ngi waxtaan wala. non man personnellement waxtaanoo. waxtaanoo ok merci beaucoup. waaw même photo bi xoolal bi rek xoolal ak trophée bi bàyyi Bueno, yo